Euh, bu dee ci téléphone bi première page bi euh, cinquième phrase wa min dalili ala dhalika aydan baax na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 te musal ñu ci cheytaane ak i pexeem naam ñu ñëwaat ci kashfu shubahat bu alcheikh muhammad ibn abdul wahab at-tamimi rahimahullah shubha bi nga xam ne ci lañu ne woon mooy lëntu bokkaalekat yi ni lan moo tax ñuy yéefarloo ñoo xam dañuy wax laa ilaha illallah. allah gëm dekki di julli gëm alquran ak di noddu ak di dem ci jakka ya ñu ne mënu ñu leen booleeg katu makka yi indi woon nañ ci ay tontu naam moo fàttali tontu yi cheikh bi tudd na ci ñeenti ba juróomi tontu naam naam weddi leneen naam naam dalil bi euh, euh, yaa allazina amanu udxulu fi silmi kaafa naam naam loolu mooy bu njëkk bi mooy islaam ku gëm lii weddi lii weddi leneen ci islaam yéefar nga ñoom di wax loolu ñoom gëm nañ la ilaha illallah gëm nañ dekki gëm nañ julli gëm nañ bis penc waaye ànd ak loolu wedd nañ tawhid ñi ngi bokalé ñi ngi jëbbalu keneen ku dul yalla ñi ngi ñaan keneen ku dul yàlla kon loolu kéefër la afa tuuminuuna bi baadil kitaab wa takfuruna bi ba'd naam ñaarel bi bo ben la ben tont Nah. naam banu ubayd alqaddaa naam mhm. naam naam naam ñaareel tontu bi mooy banu ubayd alqaddaa dañ daan julli dañ daan woor dañ daan tabax ay jàkk dañ daan nodd dañ daan julli ca mbooloo waaye ba ñu amee pas yu jël lenn ci mbiru yàlla jox jagleel ko aimmatu ahlil bayt borom xam-xam ci jamono dañoo dëppoo yëfarloo na xeex ak ñoom naam loolu ñaar la beneen dalil bi naam mhm. naam tudd nga ñaar tuddal benn après nga indi beneen naam siit yi ci jamono Ali dañ daan julli dañ daan woor dañ daan génne azaka dañ daan dem ca mbooloo mu di julli dañoo gëmoon dekki waaye bañ ne Ali yàlla la Ali daf leen a yéefarloo saxaaba yi ànd ci yéefarloo la ñuy xeex ak ñoom comme laa ilaaha la boobu jëriñul ndax dafa am lenn góor ñu wax laa ilaaha illallaah waaye wedd nañ leneen muy lan muy tawxiid naam loolu ñett la ñeenteel bi yarxam ko Musaylima mi doon woote woo yonent te daan wax laa ilaaha illallah moom Musaylima da daan julli da daan woor waaye ba mu woote woo yonent Abubakar da koo yéefarloo saxaaba yi dëppoo ci yéefarloo ko ak xeex ak ñoom naam macha allah des na walla naam juróomeel bi mooy boroom xam-xam yi fiq yi ci seen téere fiq yépp am na lu ñuy jagleel xukmul murtad buntu hukmul murtad moy ko xamni dafa jullit la di julli di woor di joxe azak def lepp mais mu def len lo xamni da ci diine l'islam mu mu murtad day julli day wor day def lepp waye nak muy bolu ci sëriñ ko murtad na genné ci diine ci diiné l'islam naam masha allah naam ak ban ah la ah. Masya allah Masya allah eh, des na ben ci xaswatu Tabuk wa ayaatihi hmm. naam naam naam ñooñu dañoo gëmoon yàlla gëm yonente bi di julli di woor waaye ba ñu sabootee yi ak melokaan bu leen yàlla bindee dañoo génn ci diinal islam ànd ak loolu dañ daan jul dañ daan woor dañ daan dañ daan joxe azak macha allah jazakumullah xeyran maa qaalu wa laqad qaalu kalimatal kufri baada wa kafaru baada islaamihim kafaru baada islaamihim mooy waa dafa gëmoon yàlla di julli di woor waaye ba mu waxee dara ci yonente bi waa ji dem boole kook yonente bi sallallahu alayhi wa mu ñëw waat ni waxu ko yalla wacce ya ci mom ni yahlifuna billahi ma qalu wala qad qalu kalimatul kufr kafaru ba'da islamihim dañu wedd ginaaw buñu gëmé comme waajoo dafa gëmon yalla da doon julli da doon wor da doon joxe asaka da doon wax la ilaha illallah waye ba mu Islam. yaronte bi alayhi wasallam ci la genn ci ci diin al barakallahu fiik jazakumullahu khairan ñu jël euh, tay am li hadiya la bu bes la faddal maa ngi naam mu ne wa min ad aydan wa min aydan bokk na ci dalil yooyu ba léegi dalil lan dalilu lan ci tontu leen wax bu ñu wax ni naka ngeen di yéefarloowee ñi wax ñi nga xam ne dañuy wax laa ilaha illallah ñu ne ñun doo la ñu jox at tey bokkaalekatu nekkoon màkk ndax ñun dañuy wax laa ilaha illallah te bokkaalekatu nekkoon màkk daawuñu wax laa ilaha daawuñu ko wax mu ne bokk na ci dalil yooyu maa xaka allahu azza wa jalla bani israila maa islaamihim wa ilmihim wa salaahihim annahum qaalu li muusa ijcal lana ilahan kama lahum وقال أناس من الصحابة اجعل لنا يا رسول الله ذات أنوات كما لهم ذات أنوات فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة تونت bu ñu تمت تي tontu بني ci wax bu ñuy wax ni képp kuy wax laa ilaha illallah rek kenn waru koo yéefarloo donte yàlla lu mu nettali ci bani israil ci jamonoy Muusa ci islaam la ñu newoon maa islaamihim ndax islaam ñaar la islaam am ak islaam xaas islaam am mooy woote ci tawxid sori shirk loolu mooy islaam am képp koo xam ne mu ngi ci tawxid mooy kooku jullit la loolu tamit islaam la comme loolu mbooleem yonente yi ci islaam la ñu newoon comme islaam boobu la ci cheikh bi namm moo tax mu ne bani isra ma islamihim moy tawhid bañu bañu amone Islam khas, moy Islam bu yonente bi sallallahu Alaihi Wasallam indi mune wa ilmihim wa salahim ak xam-xam bañu amone ak mbax bañu amone waye bañu waxe musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha ci jamono joju yalla borom subhanahu wa taala daf leena xamal ni li ngeen wax ni musa daf leena xamal li ngeen wax ni kéefër la te ñoom dañ daan julli maanaam dañ daan topp Moussa ñu ngi woon ci islaam waaye ba ñu waxee lii wax ji Moussa daf leen jubbanti xamal leen wax ji waxu kéefër la ànd ak loolu banu Israël ñu ngi woon ci islaam ñu doon wax laa ilaha illallah ñu ngi doon appliquer sharia Moussa ñu doon appliquer sharia Moussa waaye ba ñu waxee ñoo ñooñu tamit nekkuñ ay yéefar ku la moo tax ngeen di tegtaloo nii mooy comme luñ doon juju sànq mu defal jawaab su boobaa ñu tontu leen ñu ne leen an an taqula nga wax inna bani israila lam yafalu dalik banu israil bañ ko sàkkuwee Moussa leeral leen defuñu ko loolu moo leen wuute ak yéen yéen da ngeen ko def waaye banu israil defuñu ko comme shirk soo ko kan nammee def te xamoo te tàbbi woo ci fenn lu yéefar mu ne wa kadalika alladina saalu nabia sallallahu alayhi wa sallam lam yafalu zalik saxaaba yi laa joon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu defal leen garab comme bokkaalekat yi ñoom it tàbbi wuñ ci jafe wuñ ko mu ne wala xilaafa te wuute amul ci borom xam-xam yi anna bani israila law faalu dalika la kafaru wuute amul ni buñ ko defoon rek ay yëfar la ñu doon ginnaaw bañ leen ko leeralal wuute amu ci mu ne wa kadalika laa xilaafa amul tamit wuute ci borom xam-xam yi anna alladina nahaahum nabi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi nga xam ne lu sallallahu alayhi wa tere wax jooju law lam yutiuhu bu fekkee topp ñu yonante bi wattaxasu zalika anwaat wattaxasu anwaat ñu daal di dem ci garab bi daf la yéefari def baada nahyihi ginnaaw ba lañ koy tere la kafaru dañuy weddi yàlla wa hada huwa al matlub lii mooy lii mooy luñu soxla comme mën nga indi xissa bi ñoom ñu indi leen ne la xissa bi daf ñuy dëgëral parce que ñoom wax nañu bokkaale waaye kenn yéefarloogu leen nga ne leen déedéet banu israil bi wuñ ci ba leen Moussa xaree dañoo bàyyi saxaaba yi nga xam ne tam ñoo waxoon yonent bi salaa sallam loolu tàbbi wuñ ci bala yonent bi salaa sallam tere dañ ko bàyyi comme différence bu ñu am ak yéen mooy yéen da ngeen a jëfe te ñii te ñuy من ولكن وينك هذه القصة قصة بنو إسرائيل أم موسى القصة صحابة صحابة يبقر عمل قرب أن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد دف جيجر أن المسلم جلد بي بل العالم ولا برم محمد بي لا يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها دو tàbbi ci bokkaale bu fekkente ni xamu ko comme fii looy jëlee ci gaa yi faral di wax cheikh abdou haba yéefarloo nit ñi musaddid gaa yi loolu la ñuy wax ana ana wo tufiidu an almuslima bal alaalima قد يقع في انواع من الشرك قد يقع في انواع من الشرك لا يقع به هذا خطا لول غير ام لا قد قد نعم من تاب بي تي لن تي فاصون الشرك تي لن تي شرك laa yadri xamul anha fa tufiidu taallum wa taxarrus mu dem jàngi te xam comme fii Cheikh bi Abdoul Wahab da ngay gis ni fii day jàppal ngànt ko xamul day jàppal ngànt ko xamul dootul ñu bëri dañuy wax ne Abdoul Wahab jàppal ngànt comme takfiir yu ñuul waaw takfiir yu ñoom dañuy faral di tegtaloo ci Abdoul Wahab lu bëri bëri naan moom du jàppal ñun ngànt comme fii da ngay gis ni jàppal na ngànt ko xamul waaw fii dafa leer wa maarifata أن قول الجاهل توهب جاهل كرير بناء التوحيد فهمناه نورير نقل ولا لا نقل كمبران من التوحيد كرير ولا نقل التوحيد أي لقاء وخير نقل كسام مريل واي سرين بيولا نقل التوحيد يخاف هو التوحيد نقل نقل التوحيد من أن هذا من أكبر الجهل لولا هو بوكو تي جهل بغنا مغ ومكايد الشيطان دا بوكو تي فخي الشيطان وتفيد ايضا داف ني جيرن قصه بي قصه بني اسرائيل اك موسى القصه قصه يونت بي اك ان المسلم المجتهد جيرن بيغا داف اجتهاد اذا تكلم بكلام الكفر سو وخه وهو كافر وهو لا يدري آه، ف فتنبهه على وتفيد ان المسلم موي بلان باج بي باج بي نيور تليفون وتفيد ان المسلم جلد بي المجتهد بوي غور تي دين اذا تكلم بكلام كفر بو وخه تي واخ بو خامني كفر لا كوم صحابه واخ بو ني واخ كفر لا اجعلنا ذات انوار كما له ذات انوار واخ جوني كيفر لا لا شك وهو لا يدري فك خمول فينبه على ذلك جو داليكو تي بايلو خيل وتاب من ساعته مدال دي توب تي ساسي انه لا يغفر دو دو وادي كوم جلو ري دي جولي بيغا خامني خامول واخ بن واخ غور غور لو تي ني دال ديكو تي باي لو خيل ني واخ جي كيفر لو مدال دي توب تي ساسي تدكو تندكو يوفر لو كما فعلوا كما فعل بنو اسرائيل كوم بنو اسرائيل موسى والذين سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اك صحابه يغا خامني لاج نيو نتي صلى الله عليه وسلم وتفيد ايضا يجلج قصه بي ايضا انه لو لم يكفر فانه يغلز عليه الكلام تغليظا شديدا ميم فكي دو يفر كو ملني بوخي واخ جو ملني داني تراو تي موم بون كاي جوبال وا دوكو راي موتاخ دعوه دا فا ام نيتي اتاب كوم نيكو ابن القيم واخي في مفتاح دار السعاده مو دعوه دا ام اتاب سدال ab état bu digg doomu ak état bu tàng daaw ñett yi ñoo am daaw mënuñu wax rek lépp seddal la déedéet loolu juumte la mënuñu wax lépp digg doomu loolu juumte wax tamit lépp taral la loolu juumte la moo tax Ibnu day wax ni ki nga xam ni day jël bu yàlla ak fas yéene réeral nit ñi di leen yóbbu safara te bu def ko ci tayeef kooku waruñu seddal kooku du ko ñuy seddal ci kaw waaye ka ñuy seddal mooy jaahil bi nga xam ni dafa réer te xam mu ne ko ku mel nii bu waxee dañuy taral ci moom comme Moussa dafa taral ci ñoom yenn saa dafa taral ci ñoom am na riwaaya bi yenn saa sallam kanam gi dafa xonk changé mu ne wallazi nafsi bi yadi qultum kama qaala banu israila li li Moussa ijal lana ilahan kama lahum aliha ñu dem ci beneen bi mu ne walil mushrikina bokkaalekat yi shubhatun uxra am nañ beneen lënt ñu déglu lent bi ci seen wax yi maanaam lan la ñuy tegtaloo ci wax bu ñu wax ni bokkaalekat tant que muy wax laa ilaha illallah kenn du ko génnee ci biir islam كيف حال الشيخ الأخ كيف حالك أنت معنا تفهم تفهم العربية آه ما شاء الله من أين من المغرب حياك الله أهلا وسهلا bokkaalkat yi am nañ beneen beneen lënt ci wax bu ñu wax ni bokkaalekat tànk mu ngi wax laa ilaha illallah kenn waru ko yéefarloo moo xam da ngay jébbalu ci sëriñ bi moo xam da ngay waat ci sëriñ bi moo xam da dem ci bàmmeelu sëriñ bi di ko ñaan tànk yaa ngi wax laa ilaha illallah rek kenn du la yéefarloo am nañ ñoom lënt bu ñuy tegtaloo lënt bi mooy annahum yaquluun ñoom dañuy wax anna nabia sallallahu alayhi wa ankara ala usama رضي الله عنه آه، لما قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله تبنى الرواية من وكيف تفعل بلا إله إلا الله ñom bokku na seen وقبني وقبني bu ñuy wax لا إله إلا الله wax la ilaha illallah te ñu ngi bokkale bokk na seen dalil mooy nee nañ usaama xissa bi xam ngeen ko ci benn xare muy xeex ak benn waay ba damm jaaseem ba waat ba di waaj euh, ba di ko waaj a faat waaju ne laa ilaha illallah usaama daal di koy rey ba ko yonent salaa sallam yëgee ne ko lan moo tax nga rey ko yow usaama ginnaaw bu mu waxee laa ilaha illallah mu ne innama qaalaha xawfan da ko wax rek ngir ragal waaye wax ko ngir ngir gëm ko yonent bi salaa sallam ne ko naka ngay def ak laa ilaha illa allah nga jëlee fi ne jullit islaam dafa tëj buntu takfiir maanaam buntu takfiir da koo tëj buntu tuub da ko da ko ubbi moo tax waa ji donte ci xare la sax mu dem bay faatu wax laa ilaha illallah yoonu islam dafa mer ci loolu ndax islam à chaque fois day ubbi buntam ngir tuub nga gis ni islam lu muy takfiroo nit nekkul lu ndaw waaw nekkul lu ndaw moo la ñu ne ak takfir yantafi bi adna shubha shubha bu gën a buñ ko amee rek dañ ciy dàq takfir bu ñu amee lënt bu ndaw dañ ci dàq takfir loolu mooy règle bi takfir nekkul buntu boo xam dañ koo dañ koo ubbi ñoom lii mooy seen tegtal lan mooy seen tegtal ñoom ñu ne yonent bi salaa sallam dafa ŋàññi Usaama ci rey ba mu rey waa ji ginnaaw boo waxee laa ilaha illallah comme yéen tamit yéen wahaabi yi ibaadu yi naka ngeen ñuy yéefarloo te ñun dañuy wax laa ilaha illallah lii mooy seen tontu seen dalil ñu déglu cheikh tamit yonent moo ne umirtu an uqaatila an naas xata yashhadu xata yashhadu am laa ilaha illallah yonent saa sallam mu xeex nit ñi ba may wax laa ilaha illallah ñu ne comme loolu dalil la ci ñoom mu ne wa muraadu cheikh mu ne wa juhaal yi nga gis ni dagan na ab jaahil bokkaalekat buy lëntal nga tuddee ba jaahil mu ne anna man qaalaha laa yakfur ñoom lu ñu ci nam mooy ku wax laa ilaha illallah defal bokkaale bu la neex yow doo weddi yàlla wala yuqtal te kenn du ko rey walaw faala maa faala donte def na la mu def kenn du ko rey léegi lan la ñuy tontu kii ci li ngeen jàng ci lu wees mooy mboolem lënt yu wees yi day tontu day tontu yu wees day tontu day tontu wax ji mooy tontu bu mbokk bi tudd chef bi indi fii benn leeral mu ne fa yuqaalu li haulaai aljahalati almushrikin bokkaalkat yu réer yi di wax li maalumun anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaatala alyahud wa sabaahum wa hum yaquluuna laa ilaha illa allah yonent sallallahu alayhi wa sallam xeex naag yahud yi banu qurayza te ñoom dañ daan wax laa ilaha illa allah da yahudi ahlul kitab lañu dañ daan wax ne amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg ku dul yàlla wasabaahum mu emprisonné leen mu téye leen tëj leen te pourtant ñoom dañ doon wax laa ilaha illallah ndax yahud yi xamoon nañ lan mooy laa ilaha illallah ahlul kitaab la ñu woon waaye dañoo nekk ay yéefar ndax dañoo ne Uzayr Uzayr ibnullah Uzayr doomu yàlla te loolu bokkaale mu ne wa anna ashaaba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaatalu ban bani xanifa saxaaba yi dañoo xeex ak banu xanifa te dañ doon wax laa ilaha illallah moo ñu ba doon joxe joxe azaka ak ñu gëmoon ni musaylama yonente la wa hum yashhaduuna an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah dañoo gëmoon laa ilaha illallah dañoo gëmoon muhammad rasulullah wa yusalluun dañ daan julli wa yaddacuuna al islaam dañ daan woote woo islaam wa kadalika alladina xaraqahum ali ibnu abi taalib ak ñi nga xam ne ali dafay lakk ci safara bañ ne ali yàlla kon dalaa tënkal tontu yi nga xam ne moom moo moom moo jàll mu waxaat mu ne wa haulaayil jahala ñii bokkaalekat yi di wax lii ñu réer ñii muqirrun ñoom dañoo gëm dañoo saxal an na man ankaral baata ku weddi bisu pencu kafara weddi na wa qutila dañ koo war a rey loolu gëm nañ ko weddiwuñ ko walaw qaala laa ilaha illa allah donte daa wax laa ilaha illa allah ñoom ñii di wax wax ji ñoom gëm nañ ko weddi dekki dañ ko war a rey donte daa wax laa ilaha illallah comme ñoom ñu ngi contradiction naka ngay waxee ni sama bokkaale bi génne ma ci diina islam ndax maa ngi wax laa ilaha illallah te yow mi koy wax dangaa gëm ni ka weddi dekki dañ ko war a rey donte daa wax laa ilaha illallah dellu ci téere suuf yi seen borom xam-xam yi dañuy saxal loolu di ko wax Ghazali day wax loolu Ghazali te booy tudd tasawuf da koy tudd su Suyuti day wax loolu Suyuti day wax weddi dekki weddi alaaxira yéefara dañ ko war a rey doonte day wax laa ilaha illallah tey naka ngay waxee loolu ba noppi naka ngay waxee loolu ba noppi nga def contradiction nga ne yow mii di bokkaale kenn du la war a rey doonte yaa ngi wax laa ilaha illallah comme ñu ngi ci lan ñu ngi ci contradiction Arrazi bi nga xamante ni ci jamono amoon na lenn ci tasawuf ba bindoon na benn teetu def asirul maktum fi sihr benn téere boo xam da koo bind ci njibar wax ci ay bokkaal yi dul jeex Xasaali ci jamono boobu gëm na ni ka yi dekk dañ ko war a rey non du Xasaali Arrazi Arrazi Arrazi ci jamono boobu gëm na ni ka weddi dekk dañ koy rey doonte day wax laa ilaaha illallah ba pare ñu ne kay bokkaale kenn du ko rey feeg muy wax laa ilaaha illallah lan mooy différence bi te bokkaale moo gën a gaaw comme dañoo dugg ci tanaaqud brochère bi téere bi ku ko peeg xam ko doo am problème débat ak vocal téere bi chef de yàlla da ko defal barke def ci taw soo ko peegee delluwaat ci duruus yi peeg xam tontu yi yow doo am problème vocal ko mu ne daan mu ne wa man ankara shay'an min arkaani salaa kafara te ñoom gëm nañ kenn ku weddi ponk lislaam yéefar la wa qutila wala uqaala dañ ko war a rey wax na ko ñoom gëm nañ loolu ñoom suufi yooyu di wax loolu fa kayfa laa tanfau naka naka naka la koy jëriñ isa isa jaxara shay'an min hadihi furu bu fekkente ni lii ay furu la julli woor ak yooyu ay furu la ñoom gëm nañ ku ko weddi yéefar la dañ laa war a rey te ay furu la du aslu du usul maanaam du tawxiid mu ne wa tanfau naka la koy jëriñee nag إذا جحد التوحيد سويد التوحيد الذي هو أساس الدين الرسول دين الرسل والأسس نك لا جي وخي لي بويد دي ديك يفر لا بو جولي وول يفر لا تلا اله الا الله دكو جيري بو ودي اك يفر لا تلا اله الا الله دكو جيري بو ودي كور يفر تلا اله الا الله دكو جيري با كوري بو ودي إله إلا الله نلو يفر لون نك لا مونا نك مستحيل ولكن اعداء الله

moom la ñuy sukkandiku di ci lëntal li mu ne fa innahu qatala rajulan iddaa al islaam dafa rey ab waajoo xam ni dafa woote wa islaam annahu zanna dafa foog ni waaji anna ma daahu illa xawfan ala damihi wa maalihi usaama rey ko ci ni daa am yaqin ni waaji mu waxit la wégalkatu yàlla waaye da koo rey ci njott bu mu njott di da koo wax rek ngir ragal ñu jël deretam ak alal loolu kese la mu ne war rajulu isa azhara al islaam nit ki bu feeñalee lislaam wajabal kafu anhu dañ ko war a bàyyi du ñu xool lan la yéene ci xool bi déedéet nit ki bu feeñalee lislaam dañuy seede ci moom islaam boobu parce que islaam lu ñuy dugal li ñuy digal mooy ñu seede ci lu feeñ paalu nëbbu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa bàyyi munaafiquun yi ñu ànd ak jullit ñi ci jàkka yi ci sàpp yu njëkk yi ci koor yi ci aj yi te xam na ni ay munaafiku lañ la moo tax ndax dafa bañ a ubbi buntu takfiir comme foofu noonu munaafiku nabi saa sallam xamoon na ni ay munaafiku lañ waaye daf leen a bàyyi ñu ànd ak jullit ñi lu tax ndax dañoo feeñal dañoo feeñal islam comme jullit bu feeñalee lislaam loolu lañuy ñuy àtte ci moom ba keroog muy feeñal lu wuute ak loolu loolu moo tax yoro saa sam daal di ŋàññi usaama ci ci lu mu def waaye ŋàññiwul usaama ngir dafa ne képp kuy bokkaale bu waxee laa ilaha illallah kenn war ko def dara déedéet yéen nag seen bokkaal dafa leer yéen ñi di wax li seen bokkaal dafa leer ñu ngi leen di gis ngeen dem ci bàmmeel yi di ñaan di ko tawaaf di waat ci ay nit di jëmbalu ci ay nit comme bokkoo leen kii da doon def kéefër waaye musul wax laa ilaha illallah mu koy doog a wax comme kooku dañ koy may chance ko bokk nag yeen ñi nga xamne yeen koy wax di bokkala yalla borom bi subhanahu wa taala euh, mu ne yàlla moo ya yaa amanu fi sabilillah fatabayyanu yeen julli ñi bo la deme ci xara ci jihad na ngeen leer lu xol kat ngeen di ray ki ngeen di ray na leen leer ni ab yéefar bu la ray ab jullit comme aya bi mo usama na الآية من آية من أي تثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت آية من في ويكوح لا إله إلا الله من الله رجع أي من رب كم إسلام بيتك بنت تكفير التكفير ينتفي بأدنى شوى لول رجل تكفير بيك بندو لكي داق تكفير نعم mu ne fal aaya tadullu ala annahu yajibu kaffu anhu wa tasabbut comme que wax na laa ilaha illa dañ ko war a berne ñu leerlu ci ay mbirom ba noppi balaa ñu koy wax mu ne fa in tabayyana minhu baada dalika maa yuxaalifu al islam qutila ginnaaw loolu nag bu ñu leeree ci ginnaaw loolu ginnaaw boo waxee laa ilaha illa bi tasabbut ñu gis ci moom loo xam ne dafa wuuteeg islam su boobaa nag aha mun nañ ko rey mun nañ ko mun nañ ko yéefarloo naam mu ne anamu maa yuxaalifu lislaam qutila li qawlihi taala fata fatathabatu fatabayanu ci riwaaya ibn masud fata sabbatu walaw kaana laa yuqtal idan ida qaalaha lam yakun litathabuti maana bu fekkente ni bu ko waxee kenn du ko rey comme tasabbur bu yàlla di wax du am sens tasabbur bu yàlla di wax du am sens comme ku wax laa ilaha illallah ku ñu gis bu nekk jullit dañu leeru ci ay mbiram ba mu wóor ni kii dafa def lenn lu wuuteeg lislaam ñu doog ko rey te ku ko war a rey mooy waliyu waliyul amr nekkul ku tëb rek ne kii yëfa la xaaral ma rey ko déedéet mooy état bu ñuy àtte islaam njiit bi moo war a def loolu wa dalilu ala hada dalil bi yoonu saa dafa ne aqataltahu baada ma qaala laa ilaha illallah te da nga koo rey ginnaaw boo waxee laa ilaha illallah كفوفو شاهد موي كوخ لا اله الا الله جنا بوب كين وركو جوخ اتي يفر لودو دانيو دانيو لير نبي صلى الله عليه وسلم وقال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله دنج ما ديغال ما خا نيت ني باني وخ لا اله الا الله بون كو وخي رك نامتو امنا هو الذي قال في الخوارج تنو صلى الله عليه وسلم موخ سي خوارج ني ايدما لقيتموهم فقتلوهم خوارج ني غا خامتاني نيوم dañuy rey nit ginnaaw boo waxee laa ilaha illallah sallam moo ne foo leen fekk rey leen ñoom xawaarij maa kawnihim min aksari naas ibada ñoo ëppale nit ñi jaamu yàlla boo leen gisee da ngay xeeb sab jaamu ci seen seen jaamu waaye du boo leen gisee rey leen ndax lu tax dañoo daganal tuur dereetu jullit bi nga xam ne day wax laa ilaha illallah alxawaarij yukaffiruuna bi kulli mukaffir xawaarij ñoom dañuy yëppooloo nit ci loo xam ne du képp mu ne lu gën a wóor mooy alxawaar yu kafiruna bi kulli mukaffir bul wax ne alxawaar yu kafiruna bil kabaayir dañuy yëfarloo ci bakkaar bu mag déedéet du bakkaar bu mag rek ñoom yu kafiruna bi kulli bi xayri bi xayri mukaffir ci loo xam ne kenn du ci yëfarloo mun nañ la yëfarloo sax ci bakkaar bu mag da ngay tox sigaret sax ñu yëfarloo bu ko xaraam dañuy nettali am ñoon bu ñuy toxee sax ñu yëfarloo leen tox sigaret ñu rey leen comme bi kulli mukaffir bi xayri mukaffir te liy yëfu rëy ci loo xam ne du mu kaffir naam mu ne xatta inna saxaaba yaxqiruuna anfusahum indahum saxaaba yi daan xeeb sax seen jaamu yàlla ci jaamu yàlla xawaarij yi xawaarij yi وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله صحابة خوارج ci saxaaba yi lañ jàngee ci ñoom Ali lañ jàngee ci ñoom Muawiya lañ jàngee ci Ibnu Abbas lañ jàngee ci Ibnu Omar lañ jàngee waaye ba ñu génnee topp ci ali dem beru yéefarloo ali ak muawiya ànd ak loolu dañ leen a yéefarloo laa ilaha illaa ba ñuy wax jëruñu leen ndax dañoo yéefarloo ñi nga xam ne duñu ay yéefar te xawaari ji kan moo leen dàq wax laa ilaha illallah kan moo leen dàq tudd yàlla kan moo leen dàq jaamu yàlla ànd ak loolu salaa sallam dafa digal ñu rey leen kon loolu du lay comme lii yépp ay lënt la ay tontu la yoo xamante day tontu seen lënt bii ñu am mu ne wa kadalika laa ilaha illa wala kasratul ibada wala diaau islam lamma zahara minhu ash-shari'a sen la ilaha illa jëru ñu leen ginaaw ba ñu defee loo xam ne dafa wuute ak ak sharia mooy yéefarloo koo xam ne du du yéefar te kooku yéefar la yéen a salaa sallam boo ne sa mbokk jullit yaa kaafir bu nekkul ci moom rek nekk ci نكت يوم نعم وكذلك ما ذكرناه اكلني تد من قتال اليهود في خيف يوند صلى الله عليه وسلم يهود بنو قريظه يوم دا نور لا اله الا الله وقتال الصحابه بني حنيفه اكري خيف بصحابه خيف بنو حنيفه وكذلك اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغزو بني بني المصطلق لما اخبره رجل أنهم منعوا الزكاه xatta anzala allah ya allazina amanu in jaakum fasiqun bi naba ba mu déggee ni ba mustaliq yonent salaa sallam a joxe azaka yonent dafa bañ dafa bëggoon xeex ak ak ñoom la moo tax bëggoon xeex ak ñoom ndax dañoo bañ a joxe azaka te ñu te doon nañu wax laa ilaha laa ilaha illa allah waaye nag ba mu leeree ni xabar boobu wërul ndax ci sabab boobu la yàlla wàcce yaa lazina amanu jaakum faasiqun bi nabain fatabayyanu ba mu ko leeralee xabar bi warul ci la ci la bàyyi wa kaana rajul kaasiban alayhim ndax waa ji daf leen doon sosal kon daf la bëgg wax ne yonent salaa sallam naroon na xeex ak ñoom bu yàlla wàcce woon aaya te ñoom dina wax laa ilaha illa allah te yonent salaa sallam amoon na envie xeex ak ñoom bu du woon yàlla moo wàccee aaya wane ni waa ji indi xabar gi waxul dëgg comme ci gàttal ñu ne leen لا إله إلا الله مو دو جيرن دا آي ييب شيخ بي أدلة ييب مو إندي دليل لا بوي واني سن شبهه بي سن لنت بي لو ماب لا دا ني ييب مو لم في دا نون لا إله إلا الله واي با ني جيفه لن لو خامي دا فو ووتك شريعه صحابه اك بروم خام خام دي لينا ييفرلو بوك نا سي ال ابي طالب شيعه بن كو يا يالا مو الله لن موك صحابه يي ñu daal di xeex bokk na ci banu ubayd al qaddaax ba ñu jëlee lenn ci cëru yàlla jox ko aimmatu ahlul bayt borom xam ci jamono yëpp ànd ak xeex ak ñoom bokk na ci banu xanifa ba ñu bañee joxe azaka ak bañ ne musaylam mooy yonente bi ànd ak laa ilaha illa mu ñor wax ak julli ya koor saxaaba yi dañoo dëppoo ànd ak ñoom xeex ak ñoom bokk na ci ña daan saboote saxaaba yi ci xaswatu tabuk yàlla wàcce abillahi wa ayaati wa rasuluhu tastahziun ànd ak loolu dañ daan wax laa ilaha illallah waaye ba ñu waxee wax ji yàlla na na yéefarloo euh, bokk na ci tamit euh, ki nga xam ni moom da doon ñaañ yonente bi salaa mu àgg ci yonente bi yonente bi daal di koy laaj mu daal di wax lu dul dëgg ne waxu ko yàlla wàccee yaxlifuuna billahi maa qaalu wa laqad qaalu kalimatal kufri kafaru baada islaamihim comme yu yëpp ay tontu la yoo xam ni day tontu lënt bii nii comme lënt bi euh, fii la yem euh, mu wax mu ne ñu àggali benn phrase mu ne wa kaana rajul kaasibun alayhim fa kullu haadihi mu ne lii yëpp yadullu ala anna muraada nabi sallallahu alayhi wa sallam fi l ahadis al lu mu namm ci lii mooy li nga xam ne moom la tudd ci lu wees booy lii seen shubha bi nekkul shubha bu dëgër li ñu tudd fii yëpp da koy tontu comme shubha bi jeex na naa des na ñaari shubha téere bi jeex الله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد كيف نبارك حلو جميل جدا